tubarkalla la def ministre de l'élevage nag moo certifié le golden boy de la musique sénégalaise Wally balago Seck fi ci géttam gi ci Faramaren gétt fi ci Nord Faramaren gétt ministre de l'élevage mo ñu fi tey ak délégation bu mag ànd ak gouverneur ak ñom préfet allahumma amin

même bu dee déggoo ko comme activité principale activité boo xam ne dina mën a indi valeur ajoutée ba pare dina jëlee emploi yu bari kon ñu mel ni mën mënu sagoo nit soo amee sa doom lu nekk sa réew di def bu baax nit ñi di ko rafetlu moom ñaanal kon li ñu lay ñaanal mooy yàlla may guddi mat may lu wér mosu la ci mbéy te yaa moom yàlla lu mën di def tubarkala loolu ministre de l' nag moo certifié le golden boy de la musique sénégalaise Wally Ballago Seck fii ci géttam gi ci Faramareen gétt fii ci Nord Foire. Faramareen gétt ministre de l' moo ñëw fi tey ànd ak délégation mag ànd ak gouverneur ak ñoom préfet. allahumma amiin waaye li baa jàmm la li baa jàmm la mais li baa jàmm la waa lii daal la li baa jàmm la fier ci yow barki alquraanu karim yàlla la yàlla defal jàmm loo ragal yàlla ko gis ci àdduna jàmm la nga am incha allahu